par système pay-per-view ngeen koy mën a seetaan ci www.lambdiaspora.com. Una lucha libre que no tenemos que dejar pasar. Boinian contra Tapatín. Yo ya he comprado el billete para ver el combate en directo. ¿Y usted a qué espera? Buenas tardes, Samagay. Salam, salam, Samagay. Ñun waa Barcelone. ba pare. ante Tafatin ak Boy jënd leen seen code ñun waa Barcelone jënd nañ suñu code. asalaamaaleykum sama gars yi. Ah, mbir mi ñëw na. diggante Tapha Tine. doon xaar ñëw na. kon bokk ko kenn nettali. yéen waa diaspora bi. yéen waa États-Unis ñun waa Arlington. jënd leen seen code. bu leen ci kenn jëkk. Buongiorno, buongiorno a tutti, è donna e uomo. Allora, io sono pronotare di bigliettino e giocare di Boigna e Tafatin. waa ana Gambien diaspora bi ana waa Sweden lamb nag moo am ñuy nekkaan Tapha ak kii di Boy Niang numéro 2 it's a pay view event foo leen ko mun a seetaanee mooy ngeen dugg fi nga xam ne mooy lambdiaspora.com jënd seen code su ko defee ngeen mun a seetaan lamb bi bu leen ko kenn nettali nag. nag ngeen di

Connectez-vous donc rapidement sur www.lamb-diaspora.com et achetez votre passe. ñun fii waa France jënd nañ suñu code ba pour moi c'est fait. kon nag mbokk dimanche décembre arène système pay-per-view fukki combat benn takkusaan Tapha Tine takk ci rib Boy le Thiapathioly.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 ci seen coupé décédé waaw nekkoon suñu gaal 24 Ousmane di ko ñaanal yàlla yàlla xare àjjana di nuyu Aliou Seye gis mu dox moom tamit lu yéeme sol ki nga mooy suñu papa di ko rendre a baax papa Doubalé fi si Mohamed bi mooy nekkoon léppam fële sa àjjana Aliou Seye ñu ngi lay nuyu di la wax tey ñu ngi fii xamante mooy yëmbal lan la ñuy dalal waaw waaw fi yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur santaat suñu sëriñ sëriñ Babacar Si santaat suñu sëriñ maam Malick Si mu sëñ Mansour di ko ñaanal yàlla fi yàgg te wér di sant waa yëmbal yëpp yëmbal yëpp maa leen di maa leen di yëmbal un ba maa ngi gërëm yëpp sama mbokku mbëri yëpp maa leen di gërëm waaw di gërëm tamit sama waa écurie sama waa écurie maa leen di gërëm baaku ju mel ni sama xarit sama papa sama idole Alioune Sèye numéro 2 maa ngi koy gërëm bu baax a baax ndax ginnaaw laa ngi doon tamit buy buy nekk ba tey yàlla moom la bàyyi ma dara di sant waa gir waalo yëpp ñëpp maa leen gërëm waaw combat bi combat bi jàppal nañ ma ci bu baax baax waaw waalo du ma du ma du ma bëril nag ñëpp maa leen di gërëm rawatina sama rakk booy piir ak caat waalo ak ñoom dofu jaas ñoom ñëpp maa leen di bëggee di wax combat bi sonn nañ ci daal bu baax a baax di sant waa mafia bi mafia Talla Diop chaque fajar say Seye Aliou combat bi sant sant mooy mujj waaw déedéet bàyyi ma ma yeggali rek mafia taala bi. Mm-hmm. Eumeu Sène Faye mm-hmm. guddi ak bëccëg ñu ngi may yee. Mm-hmm. di ma yóbbu may entraîné ndax combat bi nii. grand taala grand da général almay waaw su ma waxee ñooñu rek wax naa ñëpp. ñëpp sonn nañ ci combat bi bu baax a baax a baax a Aliou Seye dangaa jëm ci bis bu mag xam na ne sant moo war a mujj sant du passé mais dangaa jël avance su champion ba nga xamante ne bii ñëpp dañ ko fee bàyyi muy Tidiane Faye ñu tuddee ko le professeur de Lansar fan nga toll ci wàccaay bi ak jamono bi lan ngay yëg waaw soo gisee boo gisee lii xam ne man li may yëg mooy ndam rek laa yëg yëmbal yëpp a ngi sama ginnaaw 100 pour yëmbal yëpp ñëpp a sama ginnaaw rawatina grand Jibril Diaw Alpha Sow monsieur le maire euh, euh, euh, Modou Mbène ministre Amadou Hott Omar Sow xam nga. ñooñu dañ may jàppale quoi xam nga côté combat bi daf leen jaral lu ne barke alxuraanu karim man su bu bu dee dama am leen lu may lu may bàyyi xel Tidiane Faye barke alxuraan ma bàyyi bëree damaa mën a bëre pire. waaw dafa leer barke alxuraanu karim damaa mën a bëre es dégg nga ne dégg nga nga ne. xam nga ki nga war a bëreel. ki may ma déggoo lu ma wax. man xooma moom moom man laa man foo mi dama koo mën torop alxuraan lamb ma waxul dëgg barke alxuraanu karim billaay wallaay ndax mooy loolu quoi xam nga man daal du ma ci mën a xam laa ciy wax le 19 laa ciy wax ci kàttan yaa di ngeen gisaat benn Alioune Seye bu bees waxoon naa ci kama sama kama ak Tapha Mbeur di ngeen gisaat benn Alioune Seye bu bees tàq bu ñëwaat ak yeneen i façon barke alxuraan ndax daa am ñu nekk sama ginnaaw dafa am ñu lan la bëgg Tidiane Faye andil ko ko ma ni na lu mu indi baax na. gore nga bëgg wala xeex. lu mu indi baax na lu mu indi baax na man daal entraîné naa ci tous les plans naa ci tous les plans pare naa pare naa ci lépp. ngay bëre koo xamante ne moom la mag ci làmb muy Tidiane Faye ñëpp ñi nga duppee ko ni mooy professeur de Lamsar nangul ko mën a bëree ngay bëree kooku tey xam nga engagement yi la ci fekk ci làmb ji ak bis bu rëy bi ngeen di bëree lu toll ne nga xamante ne mooy Tapha Tine Boy a rëy sa kaw nag mais ki ngay bëree mooy ndaanaan ni bis du rëy ci man man ba ma nekkee xale laa dara bëri bis tàkkusaan bu ne am naa ko mbapat fii man donc mamaa fi dem bëree ñuy jaay ticket 2000 barka alxuraan ticket 2000 la bis jaaxaluma dama naan lamb lamb moo waxul dëgg rek mais ci kàttanu yàlla le 19 wane woon naa sama si laa gën a woowaat sama bopp barka alxuraan waaw duggoon na fa. waaw digganteem ak Filikis. waaw yaa ngi sóor loolu tamit revanche. ma ne la. foofu wet googu dama ko miin damaa miin wet googu. waaw damaa miin wet googu. Aliou Seye dégguma la de nga ne lan. damaa miin wet googu. la ilaha illallah. waaw waaw. lu leer laa wax. waaw waaw. waa tere ban ban nga ko yëngal de. ma wet googu dama ko miin Alioune. lamba waxul dëgg. waaw. dafa am ñu ni. waaw. Alioune dafa jël risque. waaw risque mu jël mooy lu tax mu Euh, Tidiane Tidiane Faye mu jël ko xanaa du jël risque lu tax loolu risque boobu nga jël pour lan damaa yàgg jël risque damaa yàgg jël ay risque ba may daan bébé Modou Lo kenn gëmuma ba may daan euh, ba may daan Birisa Meer kenn gëmuma daan Mbaye Diouf Mbaye Diouf bëri naag euh, Eumeu Sène bëri naag Balla Gaye yaa may dégg bëreeg ñoom Baye ma Ndiol dama bëreeg moom daan ko Cheikh Niang bëri naag Modou Lo mas ni la moom dafa ñëw ma daan ko si si si yaa may dégg bëri waat ak fii ay ay Tapha Mbeur ba may bëri ma ñëpp dañ dama jël risque man dama yàgg jël risque bu doon rek mooy tax génn ci làmb kon man dem naa sama yoon bu yàgg mais maanaam xam man lu may bëri samay supporter lépp lu ñu bëgg rek man maa ngi seen dafa am li Babacar wax léegi léegi mooy lu am solo may leen ñu tuuti may wax léegi mooy lu am solo ci côté Tidiane Faye ci côté ci côté li nga xamante ne mooy xeex moom la gis seen ndaama loo xamante ne nii day dugg sa gaar daal lay dóor moom Tidiane Faye est-ce que yaa ngi sóor ci li nga xamante ne mooy xeex bi ci côté li nga xamante ne mooy bëri xëy na ba lañ jaxasoo doolay ndaw feeñ ma ne côté xeex igiri waalo mosoo gis di nga leen dànd mais kenn du leen duma ñun di ñu dàndee mais kenn duñu duma igiri waalo la nekk ci ginnaaw ñoom Silba ñoom Arona Sall xam nga ñoom grand liiru Diane xam nga ñun ñun ci ñun ci ginnaaw ñooñu la la nekk ñun kenn mësuñu duma daan ñu ñun pare na lépp suñu dee bëre fekk ko fi suñu dee xeex fekk ko fi suñu dee leneen lu dul xeex fekk ko fi man pare naa pour lépp su ma dem su may dem ger bu yóbbaa sama armée yëpp du ma fàtte dara. waaw looy wax Ardo mën naa andi microcrobe bu bëri ak coton ak alcool. Ah. yàlla dimbali na ma mus 18 combats laa bëree. benn yoon laa mos a faju ji muy sama kaw ak bi de sa mère mais dama ko dama ko yóbbu Ardo ñeenti yoon. benn yoon laa a solo la solo lool gis nañ jamono gi mooy fi xew ci diggante combat Papa Sow Siteu mbaa loolu lépp bokk na ci li nga xamante ne yéen yéen a koy sóor ci li nga xamante ne mooy làmb ji ma ñun yëmbal lan musuñu musuñu ñu dégg ci violence musuñu ñu dégg ci violence yaa may dégg ñun xamuñu violence ñun yëmbal fii lan dëkk ñun geste bu neex lan xam barke alxuraan yëmbal nag lan dëkk ñun ragaluñu guddi guddi yëmbal ñun xam ñun geste bu neex rek xam sama supporter su ma daanee dañuy ñëw ci fair play bu ñu daanee ñu dem ci seen maanaam ci fair play ñun kenn kenn xamuñu si maanaam ci yàqate waaw jàmm la nii indi solo bu gaz yu génn temps yi damu sees di sànni rafetul lu ñaaw la mais nag xam nga làmb moom euh, nit ki dina toll foo xam ne suy def lu muy def sax du ko tey mais gars yu koy def ñu ngi leen di ñu ngi leen di ñu ngi leen di ñaanal mhm. seen mbër bu amaatee a yàlla suñu ma defal ko ndam mhm. ñu bàyyi saisi ndax ñun amuñu leen lu dul arène nationale président da cee da cee investir ñu ngeen a wax arène lañ bëgg arène lañ bëgg mhm. nañu bàyyi suñu arène boobu ndax ñun si la ñuy suturloo xam nga waaw xam xam rek fan fan ma ñëwal hommage à Père Double Less bi lan moo tax nga def choix boobu noonu ci waaw Double Less euh, sunu père la sunu papa la papa ju sonnoon ci euh, ci làmb la am na droit saison di ubbi saison di ubbi yàlla def fekk ko fi ñu koy ñaanal yàlla ko yàlla yërëm xaari ko àjjana waaw di ko di ko ñaanal fépp fa mu tëdd fu ne yàlla ko yàlla suñu borom defal euh, jàmm taw féexal ko ci barke yonente bi ay yaxam sedd ci barke yonente bi waaw mhm. ndax gis fu mu nekkoon à un moment donné mu wàcc Tidiane Faye may ko chance ndax ci Tapha Mbeur nga jóge tey Alioune Seye Junior combat bi lan la ko jaral ndax ñu bari nee nañ Tidiane fay moo la dàq bëre te yéen yéen ñaar yéen a taye daw la ndax dem na ba ñu tuddee ko le professeur de l'Ansar nekk ci benn télé bu mag rek bañ jël ko consultant est-ce que tey yow xam nga tey dayo combat bi ma ne Tidiane Faye képp ku waxul du ndaanaan mhm. maanaam da ngay wax lu neex la ndaanaan ku lu fadri laa tasanteel mhm. yaa may dégg mais man damaa juddoo ci ay ndaanaan ndaanaan jaaxalu ma ndaanaan jaaxalu ma te nee la le 19 le 19 euh, décembre si la ñuy gën a xam xamoon noonu Alioune Seye junior mais si la ñuy gën a xam Alioune Seye junior nee naa la wet googu dama ko miin lan la ñuy gis lu bees lu bees mooy daal euh, kon ko ñun kon ko ñun euh, ñun yëmbal lan ñun dañuy wax yëmbal bu bees ànd ak ànd ci ak ministre Amadou Hott ànd ci ak sunu grand Jibi xam ga grand Alpha Sow xam nga grand Moussa Guissé waaw digi ma ànd ceeg gars yi bëree bëree bëree bëree bëri ay gars yu nekk su suñu ginnaaw yëmbal bees sax la ni gis le 19 euh, maanaam le 19 décembre waaw gis nañ ci ambiance nga def lu doy waar léegi mën nañoo xaar ambiance bu garaaw le 19 tamit chorégraphie bu bees tàq waaw ndax ñun bu ñuy ñëw moom ci làmb dañuy dañuy pare lépp chorégraphie waaw di leen indi di leen ñëw indi carrément ku ñu gis xam ne carrément kii ndam la indi ndax ñun moom saa su ne ñun dañuy gëm li ñu doon ba keroog ñuy gis leneen te si kàttanu yàlla combat bii nii si day si raw. wooteel say mbokk say xarit waaw. ñi may woo ñi may woo ñi may woo maanaam ñi may jàppal si combat bi ci mel ni grand Masata. Masata Masata Masata Magu Aziz Ndiaye daf may jàppale bu baax a baax taaliba sëñ Babacar boobu maa ngi koy ñaanal lépp lu mu bëgg yàlla na ko suñu borom di woo waa Tiwaawan sama sama dëkk waa Kër Mbir Ndaw waa ñàpp balla xam nga waaw woo waa Casamance woo ñëpp daal sama di woo waa Fuuta sama mbokk yi waaw maa ngi leen woo bu baax a baax ci combat bi nii waaw sama grand yi waa Yunkung xam nga waaw waa Yunkung dañuy sonn ci man barke alxuraan léegi-léegi xaas bëri la ma jox barke alxuraan te combat bi nii jaral dafa bëri mais na combat bi nii man la maanaam man la gën a jaral yaa ko jëlal sa bopp maa ko jël maa ko ci yaan faye avance am jox nañ ko ku ne avancé dem taxawaalu man maa ci mujjee jot su demee bay am lu may ragal ci làmb barke alxuraan bàyyi bëre yëmbal moo nekk sama ginnaaw barke alxuraan te damaa mën bëre le vingt le 19 ñenn xam ne Alioune Sédhiou dafa am dafa mën a bëre dafa am sañ-sañ barke alxuraan góor du yërëm góor dëgg lu ma la wax man daal maa ngi woo ñëpp le 19 décembre di si woo grand jibi grand kaar ñun danoo war a mobiliser grand jibi kaar yi mhm. alpha tise di ñëw na mais nag jeex na tàkk yaa may dégg ñu ngi xaar ministre Amadou Hott ministre ministre Amadou Hott ñu ngi koy xaar ci combat bi pour ci ay billets ak grand Modou Mbène Alpha xam nga di woo Seydou Diallo Seydou Diallo maa ngi koy woo moom ci combat bi bu baax a baax a baax a baax waaw di woo di woo grand Talla ak grand Da mafia bi. bandiraɓe mi noon di di woo di woo waa Gunaas Géejawaay maa ngi leen di woo sama gars yi ñoom dundu dundu mafia bi xam nga grand Moussa Guissé maa ngi woo ñëpp di woo tamit képp koo xam ne mbër nga nga ne nga nekk yëmbal uh-huh. maa ngi lay woo di woo say supporter di wax combat bi nii combat bu ñu soxla la 100% yëmbal bi yëpp woo waa carte basse woo waa carte basse waa Firi Live uh-huh. waa Tooba maa ngi gërëm ñëpp di gërëm Adja Dem uh-huh. sama sama sama xarit sama mag Adja Dem xaalis bëri la yëkkati jox ma rendez-vous le 19 Serif Sy Ablaye Thiaw Abdou Dakar seex bu waalo sama doom yaay seex bu waalo xaalis bëri la yónnee barke alxuraan xaalis bëri la yónnee dégg maa ngi woo yëmbal ñaar 1 ba maa ngi woo ñëpp di woo ASC pompe bi woo 100 pour cent yëmbal woo sama ménagère Matar Ndiaye moom moo fayam mooy loolu combat mooy borom di woo di gërëm tamit sama mag sama papa Yoro Dia mu Yoro Dia mu maam Malick Sy maa ngi koy gërëm di woo Abdou Aziz di gërëm Abdou Aziz Ndiaye di gërëm ñëpp ci ci combat le 19 ñëw na di gërëm sama jigéen tàkko fu mu bi nekk grand mbaaw loo fuuti woon nga ni gën a cooy commencé ah loolu ay bul dem ah, na leer transitaire ba waaw waaw loo waaw bi nekk benn baraak loo foo doon non kooku kooku sama waay la waaw benn baraak yëmbal mafia bi benn baraak yëmbal grand Mbaye Dieye waaw Mbaye Dieye daf may jàppale barke alxuraan fitil maire xaaruma ci dara daf may jàppale chaque jour barke alxuraan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 salaam salaam sama gars yi. ñun waa Barcelone ah, jënd nañ suñu code ba pare. entre Tapha Tine ak Boy Niang jënd leen seen code ñun waa Barcelone jënd nañ suñu code. asalaamaaleykum ah, sama gars yi. asalaamaaleykum waa Sénégal. ah mbir mi ñëw na diggante Tapha Tine. ak Boy doon xaar ñëw na kon bokk leen ko kenn nettali yéen waa diaspora bi yéen waa États-Unis ñun waa Arlington. kon bii si ñaar jot nañ si jotaat. fanaanal waxtu yi jot na. gaaw na gaaw na leen seen kot. bu leen ci kenn jëkk. buongiorno buongiorno tutti e donna e uomo allora io sono pronotare di bigliettino e jokkaare di Boy Niang et Tapha Tine. waa ana Gambian diaspora bi ana waa Sweden lamb nag moo am ñu nekkaan Tapha Tine ak kii di Boy Niang numéro 2 it's a pay view event foo leen ko mën a seetaanee mooy ngeen dugg fi nga xam ne mooy lambdiaspora.com jënd seen code su ko defee ngeen mën a seetaan lamb bi bu leen ko kenn nettali nag. combat bi ñu ko doon xaar bu leen ko kenn nettali ñun waa nag ngeen di xaar.

Connectez-vous donc rapidement sur www.lambdiaspora.com et achetez votre passe. ñun fii waa France jënd nañ suñu code ba pour moi c'est fait. kon nag yi dimanche 19 décembre arène nationale système pay-per-view fukki combat benn takkusaan Tapha Tine takk ci rib Boy numéro le Thiapathioly. Tidiane Faye le professeur de l'Ansar ak Alioune Seye Junior ak yeneen juróom-ñetti combat pay po view rek ngeen ko mën a seetaan ci 3W point lambdiaspora point com